gàntal na leen lu jëm ci liberté provisoire bi nga xamante ni ñu ngi ko doon euh, sàkku moom Lady nag nekk membre du cabinet du leaderu pas du leaderu Pastef bi Lady Ousmane mhm. euh, ci ancienne présidente l'office national du lutte la corruption du euh, mhm. moom mi leen nag jamono ci ñu toll nii liberté provisoire bi nga xamante ni ay avocat ñu ngi ko doon sàkku daat nañu koy gàntal waaye kii di ba tey maître Khoureyssi Ba nekk avocat ci Ousmane Sonko ma ngay mhm. daal di xam ne ni fukki ndaw ak juróom yi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo jëmale ci procès Mame Mbaye Niang ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko jamono juñ toll nii tamit dinañ delluwaat ca parquet ngir ñu gën a mën a saytu seen dossier. encore encore Maham. Mhm, Maham Diallo gàntal na daal lu jëm ah, ci liberté provisoire bi nga xamante moom. Mhm. moom mi moom mi moo yoroon ne mbir yi nemmeeku tur gi waaye ñoom seen. Ah. ñu daal di wax ci leneen comme ni ma ko euh, waxee sànq ñu wax ba tey ci lu ñeel daal di def lu nu mel moom mi la nag di nappel ma ngay daal di xam ne ni euh, la muy toppee Ousmane Sonko du lenn lu du rek mise en danger de la vie d'autrui mhm. atteinte à son intégrité appel au meurtre fausse accusation ak diffamation moom mi la mhm. nag loolu lay toppee ki nga xamante ni mooy leaderu Pastef bi la di Ousmane Sonko ginnaaw ci ay jamono gis nañ ni lu ñeel euh, coowam ak masseuse bi la di Adji moom mi la mhm. di Ousmane Sonko génnoon na doon def ab conférence de presse di yëy ci mbir mi Euh, policier boobu ne moom ca euh, mooy joxe ay information lii ji ay ñoñom moom mi leen nag dina appel ba mu ko daal di cité ci boobu lay conférence de presse dafa daal di mhm. décider porter ko plainte ba di ko toppee loolu lu nu mel jamono ji nag mu mel ni Ousmane Sonko moom <laughs> plainte yaa ngay bëgg a bari ci moom. xam nga xam nga démb démb moom lañ doon waxtaanee. <laughs> ci ponk yi waaye dañ ne rek gars moom léegi. ku ku jug rek bëgg a porter plainte may gis benn daaw si mu ne moom dafa bëgg a jug porter plainte Ousmane Sonko nga laaj tax mu ne xaw sax mu nekk mbir mi nga xamante ni nekk na mbir mu doy waar Jérôme ñu daal di àddu wax ci leneen mhm. euh, kii di euh, Marie Taw Marie Marie Taw Niang mhm. Marie Taw ñaan waa nekk ancien ministre bi nga xamante ni moo démissionné woon ni ki juillet mois de juillet 2022 bi la euh, génn waaw ci présidence du conseil d'administration de Petrosen moom mi jamono ji ñu toll nii ña nga ñuy xamal ni ma ngay daal waajal candidat ci présidentielle yi ñu jëm jamono ji daal ma ngay def buntu kër buntu kër foofu la ci diwaanu euh, Saint-Louis ah. di waajal candidature daal moom en tout cas en tout cas xam naa ne yooyu askan wi suñu mhm. gañee ci élection législative yi passé mhm. suñu gañee Saint-Louis c'est grâce à lui parce que gis nañ ne dernièrement dernière semaine bi daal di rallier ci euh, coalition Yewwi Askan Euh, élection locale yi diggante Abba ak Mansour Faye moom moom moo doon arbitré. xam mhm. candidat la woon. parce que dafa nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar. mu mhm. démissionné. Mhm. Ah, demal boppam. sa ginnaaw ga mu nekkoon troisième. waaye ba mu doolelee gars yi euh, ci lañ ci lañ daal ci lañ daal di. Euh, moom daal fësal ni fa ñu ngay. fësal ni daal bëgg na nekk candidat ci présidentielle 2024 ñu jëm. Ah, ñu ay ci ñu dem xam naa ne nag 2024 moom naan na mel ju tas. <laughs> ah man est-ce que duma bëgg a nekk candidat. ah, ah wax dëgg waa deux ans comme comme instant bi ñi ñi ne ci am na ñi nga xamante ni ñoo gën a faax ci lii bi ñëpp seen ay candidat wóorul boo jëlee bu président Macky Sall. da ngay laam-laamee dina bokkam du bokk. Ah, nañ ma pare bu Ousmane Sonko ña ngay laam la Khalifa Sall Karim Wade ña ngay laam-laamee donc ah doy na waa daal. ku ci topp lan moo topp euh, <laughs> ni jamono ju ñu toll nii nag yi euh, euh, mm-hmm. nga xamante ni daal leen nag la ka ca nekk la ñu koy topp. limal limal man kañ bëgg naa xam limal ma limal ma na leer. <laughs> Lamine ku njëkk ci mi ngi wuyoo comptable la ci hôpital bu Kaffrine. Mm-hmm. moom nag dafa def ay dépenses yi nga xamante ni ba tey justifié wu ko mu toll ci quarante cinq millions. aywa Samba. <laughs> moom lañ ci topp ak ca topp di wuyoo ci turu Aline Sow nekk de développement du développement communautaire de l'équité euh, sociale moom leen nag dafa doon def xam ko wax Covid 19 hmm. wax ni euh, jamono yooyu nag ceeb dekkoon na li nga xamante ni bokkoon na ci doon jël di ko séddale ñi nga xamante ni hmm. mooy ñi seen loxo jotul woon seen ginnaaw moom mi leen nag di Aline Sow da doon def ay surfacturation ah jëmale ci ceeb ah boobule ba tey euh, ñu ngi ñuy xamal ni moom lam la ñu ko ci toppee tollu na ci ci deux milliards zéro cent quarante neuf millions deux cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt huit mille francs. Aliou naa la woo. <laughs> Aliou Aliou Sow. noo xaaral xam nga Aliou Sow nag tur yooyu tur tur tur bi dafa xaw a siiw. Mhm. ndax ñun fi ñu nekk nii nii nañ ne <laughs> cité Aliou Sow la. <laughs> waaye tamit am naa sama benn naataango ndeysaan dama koy mhm. sànni xeer xam naa ni moo kooku daal ñoo ñoo bokk turandoo Aliou Sow la sama confrère boobu nga xamante ne mu ngi ci. télé de la place ka ca topp. kan la pare nga takk yow takkal sa ceinture. man nga wax dama ñaari eh, kii moom Ndiambe Ndiaye lay wuyoo. Ndiambe lan Ndiambe Ndiaye nekk directeur du fonds d'impulsion de la microfinance. moom nag mm-hmm. la ñu koy toppee mooy ab montant bu toll ci fukki millions ak benn yi nga xamante ni. Ah. daat na koy dépensé waaye ba tey mënu ko ah, justifier kooku moom sax tane parce que. waaw kooku toll na kooku moom xërul li euh, mm-hmm. moom nekk DAGE du ministère de la jeunesse. Mm-hmm. moom nag euh, ay surfacturation. formation la doon def. ci gel hydroalcoolique yi bu ñu xaymaa ci koppa yu ñu koy toll euh, toppee dafay toll ci quarante et million millions cent dix sept mille mhm. cinq cent quatre vingt ah, ci suñu ay koppa ka ci topp ka ci topp di mu wuyoo ci turu Madeleine euh, Suzanne Lo. Mhm. moom la da moom DAGE du ministère du commerce et des petites et moyennes oh, entreprise moom nag la ñu koy toppee mooy euh, def ay surfacturation ay ay surfacturation moom it jëmale ci njëgub hydroalcoolique. wax ñu wax ñu xayma ñu ko. moom moom moo ci gën a néew la. un huit cent mille lañ koy toppee. ah kon kooku huit cent cinq mille kooku huit cent cinq mille. huit cent cinq mille lañ koy toppee kooku moom vraiment du ma ne ñu baal ko ndax ndax ndax kopparu Sénégal moom ku ko lekk da nga ko gokki waaye waaye ah. ah. ka ca toppaat du wuyoo ci mm-hmm. turu Mouhamed Bamba Amar moom aide comptable la au ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries. moom nag da doon def ay retrait ci diggante atub deux mille vingt ak deux mille vingt et un. Euh, ci banque bi lee di BOA. dañ beewaa dañ ko yónni kooku dañ ko yónni kooku kooku dañ ko yónni kooku dañ xool nañ xool ki ko yónni kan ko moom war na joxe tur yi lu ko mooy itam tey su ma la ko doon limal onze personnes yi yëpp da ngay moo ci ëppale ki ci ëppale am na waa xanaa borom 2 milliards yi ma njëkk a tudd ci kaw Aliou Sow xaw ma. kooku yaay Aliou yow. yow mooy borom milliards. bari tey suñ ko doon lim fii. après après naa ko nee na ko ndax du moom mi ngi noonu mhm. ba tey dañu di wax ci lu jëm ci mbirum rapport Cour des comptes yi kii di euh, docteur Cheikh Tidiane Dieye mhm. moom daat nay xam na ni la mu la ko jommal daal mooy la procureur jël boobu lay euh, rapport jébbal ko waa DIC. Mhm. ndax jàpp na ni waa CREI yi ñoo gënoon a yelloo boobu lay enquête. CREI lan CREI. Eh, DIC la ñu wax division des investigations criminelles la mooy que ni euh, euh, euh, DIC enquête bi nga xamante ni ñu ngi koy def jamono juñ toll nii def nañu ko ba pare def nañu ko ba noppi waaw def nañu ko ba noppi nekk na mhm. na lu ci rëcc bu boobaa moom la nag di Cheikh Tidiane Dièye moo daal di xamle lu ni mel ma la hmm. waaye DIC ku ñu woo DIC nga dem toog da nga xam ne dig du créé de lu leer laa la wax jàllal ci beneen. ba tax na ma ngay daal di xam ne ni daal ma ngay jàppale ñi nga xamante ni ñooy collectif suñuy milliards du rees ak ñenn ñenn ci askan wi nga xamante ni bëgg nañoo xam daal rapport boobu ak ña ñam ñam ca épinglé. fu ñu nañu daal daal di génn li nga xamante ni mooy milliards yi. moom daal ma ma ngay xam ne ni mi ngi leen daal di rek. Euh, jàppale. Mhm. ñu daal di wax ci leneen ministre bu ñu dénk wàllum éducation maanaam njàng meeg jàngale bi jamono ju ñu toll nii nag ma ngay daal di xam ne nii dina def ab révision jëmale ci programme programme scolaire yi ndax ku ne xam na ni euh, ndaw ñi euh, am na école école yi euh, am na ay écoles yi nga xamante ni ñu commencé doon def ay xam na ni dañoo bëgg ñu wàññi lu jëm ci seen programme bi mhm. ba tax na moom daal ma ngay xam ne ni dinañ def révision jëmale ci boobu lay mbir xool naka la ñuy mën a daal di ñoŋalee lu jëm ci njàng mi naka la ñuy daal di defee rek ba ñi nga xamante ni noonu la ñuy tàggateen mhm. jàng ñi nga xamante ni ñooy jàngale yi mhm. ndaw ñi nga xamante ni ñooy jàng ci école yi ñu wax ci leneen ca Linguère nag ñi di ci ndaw yi Khalifa Sall yi maanaam partisan Khalifa Sall yi ña nga doon def ab conférence de presse si biir loolee nag ñoom ñi lay ñi ngi daal di xam leen ni jamono ci ñu toll nii xam ma léegi moom def testament daa xew. Ah, moo ndaw yi ndaw yi. ndaw def na sa testament. kan man. dama am dara bay bay lege man kañ xam naa kañ. man ah, am nga téléphone <laughs> man am nga téléphone am nga montre am ngay verre dafa si testament. gis nga mm. téléphone bii nii. téléphone bii nii nga xamante ni écran bi daa tojjatu te burus naa koo sax wala gis nga gis def nii nii nii. Mm. keroog daa daanu ndeysaan lépp teggeeku na. en tout cas def testament daa daa xew. Mm-hmm. ñi di euh, ndawi xalifa Sall yi nag ci douane bu Linguère jamono ci ñu toll nii moom ñoom dee nañ def na seen testament li ko wund nag mooy ni seen euh, candidat bi seen leader bi euh, seen leader bi di Khalifa Sall mm-hmm. force doo lay mbaam day nekk candidat ayca ah, su leen neexee. waaw ñoom daal nee noppi nañ def lépp li nga xamante ni rek jar na ko ngir. ñu daal di rek euh, bu bokk ci élection présidentielle 2024. ci euh, euh, di di ñëw ñu àddu wax ci leneen lu ñeel li nga xamante ni mooy mbirum people la ñuy daal di dem ku ne na ni nag jamono juñ toll nii Viviane Chidid moom nag ma nga nekkoon ci douane Paris doon def benn tournée def na def na fa lu mhm. ji nag mu nga yëy yàbbi jëm ci lu ñeel dossier Adji Sarr Ousmane Sonko moom nag la ah. muy xamle ni. ko ca xam. waaw waaye daf doon woote jàmm rek. xam nga lu jàmm ah, ko baax moom Viviane nag ma ngay daal di woote jàmm ak dal je ñeel boobu lay dossier tax na mm-hmm. ma ngay def vidéo daal euh, vidéo di xam ne ni jamono juñ toll ni nag na ñëw na ñëpp woote jàmm te xam ne mm-hmm. Sénégal réewum jàmm la te it lu ñeel dossier boobu rek mu teg lépp ci yoon ba nga xamante ni euh, jàmm daal dina daal di judd ci boobu lay mbir yaay booy ñu ngi lay nuyu at <laughs> dañu koy daal di jeexalee euh, ak dafa dafa mool de macha allah eh, li moo ci topp ma xuloo gars yi voilà dañu koy daal di ak lu soxal ba tey mbirum people ku ne xam na ni couple euh, Mia ak No jamono ju ñu toll nii nag ba tey ñu ngi nekk nit ñi di leen yëy yàbbi ci toile bi ba tey ñu ngi continuer di def buzz malgré divorce dox na ci seenu diggante. Mhm. Euh, waaye nag lañu ñu mooy ni ñaar ñoom ñaar ñi daal euh, yem nañu fu ñu yàlla yemul ci ay pic yi nga xamante ni ñu ngi koy sànnante ñoom ñaar ginnaaw bi nga xamante ni génn nañu son ak yi di Mia génn son Ida noo fes di ko tontu ca wet ga yeneen ak waaye ba tey ji ñuy wax mbir mi ñu ngi mi ngi continuer di wéy ci seen euh, réseau yi mhm. ndax ci Instagram euh, kii di noo fes dafa daal di posté benn mbir wax ay wax ni la vie est la vie nag kenn moomu ko waaye nag bu ñu fàtte ne kii di jabaram ji mhm. euh, ex jabaram bi la di Mia dafa génn benn son mhm. duppee li nga xamante ni la vie est belle boobaak léegi nag internet yi bàyyiwul leen ndax ku ci nekk nga yëy yàbbi ci eh. mbir mi ñii naa leen soo leen ndobantee dem leen ngeen sëywaat en tout cas daal pigi moom pigi ñi ñu sànnantee ci ci ci toile bi nit ñu ngi ciy bàyyi xel ba tax na daal pour man ah leen xool daal la fa njëkk la fa njëkk zéro des na la bëgg xam te pour man divorce bu amee bu fekkee bàyyante woo leen xel ku nekk day aw gauche ki mais daal ñi ngi sànnante ay pig yu mel ni topp sa bën sànni déggoo la leen laa la a wax xam nga man affaire yi moom daanaka du sama foor mhm. waaye leen da xam naa ko lu waay def sa morom tontu. Mm. ay dañoo nobante waaye ah, ñu waaye seen affaire yi dafa daal di man dafa maa soof sax. ah euh, daal couple bu couple bu nice la woon ba tax na daal jamono ah. juñ toll nii ñu ngi continuer ba tey di nekk euh, sur la toile ginnaaw bi nga xamante nii rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi def li nga xamante ni day jur polémique ci ay mhm. pic yi nga xamante ni ñu ngi koy daal euh, di di ko sànnante ku ci nekk rek di di di gaarwaale sa borom loolu loolu lañ ko daal di rek mën a tuddee Europe lii daal moo nekkoon xibaar yi nga xamante ni moo fi daal di jotoon ruusee merci hmm? waaye nag Pathé Pathé li mu wax sañ ko wax ci kaw Pathé Wele. Massour. Pathé Pathé Wele de li mu jot wax ci la couple euh, Mamour Guissé bii nii. Ah, moom xam naa xam naa tey su nekkoon imam moom. su mu moytu daanaka def tuub ba xutbawaat sëy bi ñoom ñaan ñu àndaat. Euh, en tout cas xaw ma nag seen euh, condition la ñu nekkaatee lu war a mën a nekk la nag ndax dañoo am sax bant donc nañu ko defaraat rek man moom couple bu ma neex la vraiment. Mm. mais yàlla baax na. yow waxuma temps yii kan ngay couple man aw ma. aw ma dara maa ngi nii. pause merci. mais mais mais mais <laughs> damay ñëw ci sa thème bi rek. gis nañu démb li euh, Ousmane Sonko comme di ko xale yi di tuddee ku sell ki dëbb na euh, parcelle ba ba euh, yéen wuy leen ma coppil ma coppil leen coppil <laughs> bi ko doom maay moom ñuy yàbbi aja bismillah vite fait waaw ñaari ñaari simili nag laa la may ndax yow journaliste nga waroo waroo intervenir non non non non juste dama dama def benn ñaari simili waaw taxawal ñaari simili laa la may nangu nga d'accord amul problème man wala nga dem woote waaw jërëjëf bàyyi dugg non juste pour pour ñëw ci sa ci sa euh, sujet tay bi rek. mooy mm-hmm. que ni dem wàcc na parcelle euh, voilà mbooloo topp nañu ko loo nga xamante ni waaju ko yëglewu ko. Mm-hmm. mu mel ni daal stratégie la pour tontu. Euh, ñeneen ñi nga xamante ni Amadou Ba ak mm, mm, kii Pape Malick Ndour ak ñeneen am ah, moom borom Medina. Bamba Fall Bamba Fall Sonko daal pour man. Eh. dafa génn rek pour wol leen que ni ba tey la fa newoon ma nga fa. d'accord <laughs> merci beaucoup merci ah, di nuyu um, internet yi di leen wax ngeen topp wéy di ñu topp seen site d'information bi di 2A TV abonné bés cloche te notification bi ngir ngeen di mën a am suñu vidéo ci daar daar gi ma bàyyi zéro mu wéyal seen kàddu ngeen daal di rek euh, jàkkaarloo ak moom pelloog moom mu neex. merci <laughs> kooku mu nekkoon euh, Soxna Diarra moom mi nga xamante ne moo ñu doon euh,